Música abi tey daal bi xibaar bu neexuma lay indil xibaar ma ne la ba nga juddoo ba léegi mosoo koo dégg laa la wax nii gaayama gis nga kam dégg nga camion yi doon piip piip démb ci koñ bi dégg naa seetaan ñëw leen dégg naa ko dégg naa ko tax rek ma met dégg ko te nga dégg ko te ñëwoo dama doon nelaw nag ah damaa bëgg nelaw gis nga soxna bi dëkk ci ginnaaw fii waaw soxna kam yooyu doon ñëw buntu këram laa la wax nii aha billaay laa la wax man daf ma sax dëgg la gis nga suñu doon jàpp camion yi sax ca ca ci sax camion yi lépp luy xeetu teraanga rek mën nga ca biir camion yi. da koy jaay. waaye jaayul lépp teraangay koor kese la. teraangay koor. waaye teraangay sukkaru koor kese. ah kii def na lu rëy. ci camion yi wax meewa nga ci café nga ci sukkar nga ci. ah performance sukkaru jabet sax lañ ci biir. ah riis na riis na riis na yoo xam ne nen bu ci duggee da koo indi. ah riis na ay da oh, koo indi riis na riis na. te nag leen laa lay bëgg a xamal. waaw sa doomu ndey laa mosuma la digal lay gaañ. Ah, loolu de am na moom. gis nga siir mii ci biir. laa bëgg nga koleel ma ko seere ko. siiru mi na sa saf rungaas bul ko may dara. nga. yow kay noppi te xoolal lenn laa lay xamal. waaw sama dernier conseil la la. waaw bu la joxul laa la wax sa morom yi ci biti la koy jox. ah dina ko jox leen sax laa lay digal. bu la joxul nga génn lépp ci bitik bi ndax tuuram moo fa nekk. da koy fay loolu laay def lu nga wax loolu laay def. Ah, bu la joxulee lebal ndax ci tuuram la jëm moo koy fay. yow kay nekk pat moo koy fay su ma duggee dina ma jox si nii wàcc na. na la jox loolu sama salay sale. kay nekk pat na la jox noonu laay def. waaye nag te saa yi aw ma toogaay. dootoo ndax moor moom may woote dama ko war a dem. ah dootoo dama ko war a dem. ñëw daw. toog a xaaral yoon yoon yemul ci benn ndoguli. fii laay ndogoo ba mu saf saf. yow kay jërëjëf bul ko may dara yow kay may ma rek indil naa. soo ma ko buur kër weer eh, laa tey di ma jox ko nii maa ci buur kër ma wax la ñetti dëgg yi ma wax la ñetti dëgg. nii maa ci naa waaw ba dama ni jeeg te sama morom ji waruñu maa yóbbul dara. aw ko mënuñ ko def ko. def laa ma ko deful nag. boo ko def ba dem génn lebi ji ko rek. waaw dama lebi ko dama lebi ko waaw xaaral ma dem lebi ji ko. Eh, dama ko lebi la tam nag lii lan la xanaa nekk leen ci waxtu bisu koor. bés bu yàlla sàkk ñu leen atte nag na. may la fii laa woon jox suukar nga mënu ma ko jox. su ma ko jox ma génn ci ci weerum koor bi. foofu la. ah abi dinaa la xamal lu tut tabariw. Hmm. abi bul yëngal sa sëy ndax suukaru koor. dëgg dëgg. abi respecté siiru sa borom kër la. dëgg dëgg ku ne toppal suukaru koor ba tax na fekk sa jëkkër nga di ko yeewee nii mbaa nga di ko defee nii ku ñuulug say doom yekk ku ñuulug sa jëkkër yekk say doom de. dina ma ko jox daal du farata du sunna ah. soo ko mënee def boo ko mënul bàyyi. feex ma la kii ab xelu kopp ndax nit sa borom kër gis nga suukar koor warut a tax nga nga def dara sa jëkkër. man kat Malick moo a ne ma naa ko laaj suukar koor. <laughs> wax ja faram laay na moom war a ko laaj ndax joxay na suukar koor. Malick ma ko wax amu ko mënu ko. wax la kii waay. waaw dama lay laaj ndax Malick Malick moo takkoon sëb sëy ba ñëw di la wax naa la joxal suukar koor. déedéet abi nag dama bëgg nga yeewu ñu mel ni yow yeewu ci lii gis nga suukar koor. Mm. du farata du sunna. Mm. loolu man soo tëddee ko ba tay xam nga lu ma lay sa borom kër hmm. lu leen yàlla war sa gële boo amee joxe hmm. boo amul joxe amaana sax balaa am ci diggante la nga dem joxe dégg waaye ñoo ngi ci biir waaye ngeen bi nag ngeen bàyyi ah, ah, kii bu ñëw woon dañ koy lebi ba bi biñ ko lebi ji biñ ko lebi ji léegi nag am duñ ko fayee ñu topp leen boo topp leen loolu gerte la loolu gàcce la gëm leen yàlla nag. Modou tey neex nga ma ah tey foofu waa jàpp. yéen sama waay bi waaw waaw xamoon na wax dëgg waaye damay dénk ñetti ñaari wolof a ko wax ñetteel bi ma dolli la ko ci. man wax naan may bu dëkk moo gën may bu dëkk. waru gan. waanu góor moo ko gën. waaye suukaru koor suukaru koor tey yii dina suul cëru koor.